يا رسول الله هذه هي الشمس إذا كورت يوما لكن ما بالها في جوارك وأنت شمس الفضل لا تعرف الكسوف ولا التكوير يا رسول الله هذه هي النجوم وإذ انكدرت يوماً فما بالها في جوارك وأصحابك الغر الميامين هم النجوم لمقتد بسمائهم يا رسول الله هذه هي الجبال إذا سيرت يوما لكن ما بالها في جوارك لتخ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا رسول الله هذه هي البحار إذا سجرت يوماً هناك ما بالها في جوارك وأنت لا شك قاطع أبحر نياها يا رسول الله هذه هي الجحيم إذا سعرت يوما أو الجنة أزلفت يوما لكن ما بالهما في جوارك وفي يدك شفاعة الشافعين وقومك أيضاً قوم اشتاقت الجنان إليهم يا رسول الله هذه هي الليل إذا عسعس يوما أو الصبح إذا تنفس لكن ما بالهما في جوارك والصبح بدا في طلعتك والليل دجا من وفدتك يا رسول الله هذا زيدك زيد بن الحارثه ينطلق من بيتك فجرا فإذا أبواه يخاطبانه بصوت رهيب وحنين ماذا منحكم محمد فأجاب محمد منحنا الطمأنينة والسلام وهل في هذه الدنيا هدية أكبر من الطمأنينة والسلام kon فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngeen bal ñu àq dañu xawa soj soju tukulër bi ci des itam dañu jotul am temps ndax dañu demoon voyage bi ñu dellu seet fekk kër gi di déménager lii ñu rëdd dëkk néew léegi nii ci dix-huit heures trente nga soog a seet rekk ay ñaari baat ñett ndax dafay am ñuy ñëw ci cérémonie bi ak ñu nekk feneen te duñu ñëw te dañuy bëgg nga làkk arab bi ndax moo leen gëna a wa tabaarakallaahu ñi fi teew ñépp ñépp ay sang lañ góor ak jigéen fa tabaarakallaahu rawatina ñu jóge جوجي با الجيري اه تنكل فطريق السيد شيخ احمد تجاني تداي ست كيمو خليفة بيبل دومم اك نيكو ريبريزنتي يب ñu toog nii fa tabaarakallaahu ñu jóge marok ak ñi nga xam ni yépp oustaz tudd na leen moo xam ñu jóge Côte d'Ivoire wala ñu jóge Cameroun walla ñuy jóge tabaarakallaahu Mali avons ñu joggé Mauritanie sama mbokki bop yi soxna ak avons kër ga ñu Gambie ñu section étrangère yëpp eh, ko seen comme sëriñ Mouhamed Mbacke Abdul Wadoud ñëw ci turu sunu wayjur sëriñ Muntaxa Mbacke at mu jot kenn du ko fi jiitu ci lu ne teraanga yépp daf koy def dana fi yónnee ndawal dana fi yónnee enveloppe yónnee it délégation fa tabarakallahu boole kàddu yu rafet yi ña des yépp di ay njabootit ñépp oustaz Cheikh tudd na leen ñoom ñëpp ñu jóge Tuuba te ni màggal toll ci ñoom noonu la gàmmu gi toll ci ñoom wa tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu nuyu leen sama mbokk mi sëriñ Modou Kara Mbacké yónni na ay doomam wa tabaarakallahu feddali kóllëre gi ah kilifa yépp nag bu ñu bëggee di leen tuddaat dafay mel ni dafay jël waxtu wi ndax li ci amoon solo yëpp Oustaz Cheikh wax na ko xëy na du ñàkk bu ëllëgee incha allah ñu mënul ñàkk ñu jox leen kàddu gi ñu jox leen ñu wax ci turu délégation yi ñu représenté ah, sunu mbokk Seydi Mouhamadil Amin Kunta bu Njaasaan moom itam tabaarakallaahu ci wetu Mouhamad Mbacke Abdul Wadoud ñoo mas di ànd ñu daan waxante ak léegi mat na ñaar fukki at mu mel ni nag def di rekk lu mënul ñàkk waaye wolof mooy wax ni lu dul doy loo ca am doy na ومن يونت بي صلى الله عليه وسلم موتاخ نيب داجي في موي في دي فنن موم نك كو دون واخ با ادنا بي توكي دو تاخ nga جيهال ليكو يالا سد مو ملني تم ni ko capitaine waxe rekk def di yëfu jàmmoor man na sunu boroom léeg-léeg mu am nu mu waxee ca alquran bu la fekkul nga réfléchir sa fit da fay dem da xam nga ni yàlla bu la nee ida shamsu kuwirat maa ngi lu bés bi nga xam ni ci lay déconnecté ci lay déconnecté jant bi bu ko defé nga danga naan waaw bu ñu déconnecté jant bi waaw fu leer di amati fekk booba danga xalaatul ni ki moom guddi gi mooy Shamsul Fadl waaw moom yonent bi mooy jantu ngëneel jantu ngëneel bu nga xam ni kenn du ko éclipsé te kenn du ko déconnecté ba ila nafxi fi suuf waaw bu fekkee ni yàlla def la wax ni itam planète yi dinañ leen massa désinstaller bis bu ko defee nga tiit waaw ni waaw bu ñu leen désinstaller ñun fu ñuy nekkati fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko cheikh alxaaju malik si waxe wax ni waxuma la moom waaye ñi mu am ñu di ay saxaabaab humu nujuumu li muqtadim bi samaihim waaw ay genre planète yoo xam ni asamaan sañu nekk du yàgg mukk ba ñu désinstallé ko waaw kon nag loolu dal dal na xel waaw bu ñaareel bi itam walla bu ñetteel bi mooy li yàlla wax ni di ngeen demi bés ba montagne yi yëpp ñu déboulonné ne leen waaw ñu leen déboulonné ne te ñoo téye planète bi kon bu ñu leen fi jëlee luy téye ti planète ko defé bo bëggé tiit te fekk yonenti baa ngi ci sawet waxuma la mom mais alquran biñ ko jox rek law anzalna hada alquran ala jabal ala jabal la raaytahu xashaan mutasaddian min xashatillah waaw alquranam rek montagne attanu ko waaw lu montagne rëy rëy rëy bu ñu jàngee alquran mu yaru waaw bi ci des itam mooy bu la yàlla waxee ci alquran ni la géej yi dinañu bés dem bés ba ngàcc leen ndox dootu ci am boo bëggee tiit ndax ni kon bu boobaa fu ñuy jëlee ti ndawal waaw xam naa bu dee séeréer si waaw ñom lañuy ñuy xalaat ci géej gi rek moy fu ñuy jëlé ti ndawal way fekk na bu fekke nga am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la géej waye yi min géej yi fi seenu ñu leen wa da qati'un abhuran ya an comme ni ko mawdo waxe ci xilaasu zahab yonent bi waxul géej yi mais dafa utiliser jam'ul jam' waaw parce que buñ nee baxar jam'u bi mooy buxuur waaye buñ nee abxur nag mooy jam'ul jam' waaw mu ni te yonent bi lu mat fukk ci géej yooyu bu ci ne fay na ko waaw waxuma la ni fay na ko waaye am na ay nitam ay awliya yuy wax ci seen audace ni xudna bi waqafa al ambiyaau fi sawaxiliha waaw xuus nañu géej yu nga xam ni bañ koy xuus am na yonent yu taxaw ca tefes ya ñemewuñ koo xeet xuus waaw loolu doy na cër تيانتبي صلى الله عليه وسلم ممل نيتم لسنو بروم وخ من دانيو جيل سار بييب مي دانكي جيل اسبي يي غنا ام سولو ورا غنا مارك نيت واو موي لي القران دي وخ بيس بو نيو ديمي با جافال سفر خولال لولو نيو جافال سفر سفيت دي ديم فاتني يننتبي صلى الله عليه وسلم في يده شفاعة الشافعين واو ينتبي كم رمو الألة كن دول رمو كم أمغ كل من رمو أسو بوينك لو في تتنو في واو بو فكيني الجنة لا يالا دي ونك نلا بو بابا الجنة بيجن دون سينو دنا كو خج بمو جيغلين نغبغ كونتان تب fekk danga nga ndax fekk na aljanna bi ñu lay wax yàgg na di yëkkat ndax dafay yàkkamti waa kër yonent bi ñëw pour dëkke ko qawmun ishtaqatil jinaanu ilayhim shawqahimin ila mawaridi réyi waaw mu mel ni itam yàlla sunu boroom mu ngi wax ci alquraanam bi ba tey di tudd bu ngeen demee ba guddi yooru yooru dootul ñëw suba biddanti dootul xëy bu boobaa ngeen bëgg a jaaxle fekk da ngeen xamul ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo fi bàyyi suba gi ndax moo tax mu leer moo fi bàyyi guddi gi moo tax mu lëndëm kon nag boo amee ku mel noonu bu yu mel nii amé liñu amit yow jàppal ci mom rek ndax fam lay léralé ëpp na wa loluy tax ñom pak ñi da fay am ben complexité bu ñuy jaxlé moy yàlla ñaari baat yi misliyaam ak mathaliyam بني مثلي ليس كمثله شيء وعينك بني مثلي مثل نوره كن مثلي بي موم لاني توب دا مثلي بي امول آه. موي وانا رك يوننتي بك limu ko sedd mom sunu borom xeetu leer yooyu le mathalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaax al fi zujaaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nuurun ala nuur nga bëgg a xam naka la leer googu demee waxuma ko nag ci firi fuqaha yi ak mufassirina yi maa koy waxee ci cadre firi boroom xaqiqa yi ñoom dañu gis ni pour nga comprendre yonent bi ni mu représenté leeru yàlla noonu mu tuddee baatam yooyu ci alquran mishkaat bi mooy Seydina Abu Bakr waaw misbaax bi mooy Seydina Omar zujaaja bi mooy Seydina Othman Seydina Ali mooy kawkab durri bi kawkab durri boo xam ni yuuqadu min shajaratin mubaraka mais shajara mubaraka bi kan la ñu ne mooy fatimatu bintu rasul waaw zaytunatin maanaam soxlawul énergie renouvelable parce que zaytunatin looloo tax la charqiyatin wala garbiya soxlawul fu muy fenke soxlawul fu muy sowe jant baa ngi nii xëy xëy éclairer planète bi d'un seul coup moo tax fu mu fenke boo laajtee ñu la sona de l'autre côté mais bu dee leeru yonent bi nag amul fu fenke amul fu muy la charqiyatin wala garbiya waaw moo tax yakaadu zaytuha nag yudi walaw lam tamsashu naar maanaa kibrit newu fa pour di ko jafal ndax mooy jafal boppam waaw bu ko defee kon boo toppee démarche boobu xëy na dinañ ci am sax beneen jàng xëy na bu boobaa ma laaj ko sama capitaine bi ci baatu checkpoint xëy na ñu ñëw ci suba bu ko temps bi laajee waaw ni ko mag ñi di firé ci seen haqiqa marajal bahrain yaltaqiyani baynahuma barzaxun la yabgiyaan waaw xay na ñu koy firi ñoom mu fassiru nay géej yi rekk lañ koy firee diggante géej ak dex ñu ni dinañu dend te duñu laalante la yàlla jaarale ba duñu laalante moo jara xalaat te ku dem ndar di nga ci xam dara waaw waaye ñoom itam ci seen déggin ñu ne albaxarayn mooy fatimatu bintu rasul ak aliyu bnu abi talib ñoom ñaar ñooy baxrayni yi baynahuma barzax muy yonent bi looloo tax laa yabgiyaani waaw kenn ku ci ne ak leeram ak leeru ka ca des bu ñu leen bàyyi woon ñu jaxasoo kenn du ko àtte mais yonent bee dox ci diggante bi moo tax baatu check point bi foofu nga koy déggee mais dinañ ci ñëwaat xañ na bu ñu ko capitaine maye li ma ci jote jàng ci seen euh, check point bu mujj bi waaw mu mel ni kon ci waxtaan yi passé woon li góor gi di wax ni nee na taawil lu am solo la ndax mën na tax nit yegg ci yàlla waaye it mën na tax nit sore yàlla moom taawil mu ni te ñetti tawil yi nga xam ni jàpp nañ ko ci wàllu taarix benn bi bu yonent yàlla aadam la bu ñaareel bi mooy bu iblis bu ñetteel bi mooy bu iskariyot yi ñu di ko wax Judas Iscariote bu dee bu aadam yàlla ci la dëgg pour baal ko ndax njort ko lal yàlla def ko ni lu tax nga def li nga def mu ni ko am lu ma foog rekk waaye duma la wecceeg dara comme nee na yàlla duma la wecceeg dara looloo tax talaqa aadama min rabbihi kalimaat fa taba aley moo tax loo juum juum juum boo wanee yàlla ni ko duma la wecceeg dara rek lay rek le mbir ma dana yomb bu dee tawilu iblis ci la yàlla dëgg ba rëbb ko ba abadan ndax bi ko yàlla ne mu sujjóotal aadama te mu lànk bi mu jox yàlla te moo di danga ma jënde aadama gis nga ñun wolof war nañ di wattu baat boobu mere nit parce que pour yow daf la jëndee diw waaw or que ku ci nekk ak sa cër ak fañ ko denc keneen mënu ca dara waaw Iblis loolu la tontu sunu borom eh, yaa ma jëndee aadama mayit ma xam sama bopp yàlla rëbb ko ba abadan waaye nag new na faydaam ma wax leen ko léegi rëbb na mais naw naw na faydaam fayda gi moy lan modi mom iblis dafa dajja ak musa muni musa niko ni ko li am sama ak borom bi def len neex musa niko lutax nga wax ko ndax dama gis bima. am lanteeg yàlla ba tey yéen ñii kenn waxu ci waaw mës nga gis loolu est-ce que ba muy lànk est-ce que tàggu na kenn Moussa ni ko man kat dama xamul woon ni dëgg bëgg ñu dox ci kon man dinaa ci dox dem ca sunu borom sunu borom ni ko pourtant compliqué wul dama ko waxoon na sujootal aadama mu lànk bu ko sujootalee rek affaire bi jeex Moussa ngi yàkkamti ni ah kon affaire bi jeex na ñëw ci Iblis wax ko ko Iblis ni ko ah, yàlla na narul narul ñu juboo ndax aadama négam ba muy dund laa ko sujootalul masaak ba mu dee mais dignité boobu lu saf yàlla la ndax loo nekk rekk sax ca même pour fekkee ni daf lay détruire sax ca waaw tu tax maanaam tu taawil bi Modi, di Yahuda Iskariyoti ñu koy wax Judas Iscariote Mom, bêtise bi mu def moo di bi romain yi demee di seet ci yàlla Isa pour jot ci moom yóbbu ko pendre ko moom moo leen wax fan la Isa nëbb léegi nag bi mu ko defee ba romain yi dem jàpp Isa ba noppi mu ni tawilam moo ko nax ndax xamul woon ni Isa ndeke toll na noonu mais li ci gën yéeme góor gaa ngi koy wax moo di bêtise bi tax na al arwaaxul xabiisa wax sunu borom ni ko ëllëg bu leen di yóbbu safara it na leen may bu ñu dëkk ak isxar yooloot yi ndax bàkkaar bi mu def waaw nga xam ni kon la mu def tuutiwul mu xalaata xaru mais fekk na boobu yàlla programme na pour moom ñu jël ko ci place Isa ibn Maryam wa ma qataluuhu wa walakin shubbiha lahum mais li jot eh, jara set moy sunu boroom hmm, li ñoo du tuddee discours de politique générale coow li bare na ci tay yi ñu naan discours de politique générale mais bi ci am solo sunu bopp borom moo ko prononcé ñu di ko tudd alxitaabul aali min janabil mutaali xoolal lool yàlla di def discours de politique générale wax ni nañu dajale yonent yépp ak aqtaab yépp pour ñu ñëw suivre orientation bi ñu dem dajale leen indi leen yàlla laaj jibril ni ko iblis ah, iblis lu mu ci ko la ko parce que yonent yi exception ci lépp lu baax iblis it exception lu bon kon opposition waaw kon nag dafay jaadu mu fekkee daje ba génnewul sunu boroom waaw waaye Jibril dafa jaaxle ndax defoon na ni loolu warul mën a nekk mais fekk sunu boroom dara tënk ko waaw yu mel noonu mooy tax nit ñi war di tey ci yu bare dégg na fan yi sax kuy soow ni yi xew ci réew meek nit ñi di wax lu tax Moustapha Sy waxul ma ne waaw réew mi Moustapha Sy rekk a fi nekk loolu kenn mësu ko gis mais fekk na man dafa am koo xam ni moo may orienté muy Seyid Cheikh Ahmed Tidiane gis nga li mu waxoon ni bu ñëpp dee wax booba noppi jot na te Sénégal ñëpp a ngi wax kon nag xam sa bopp asumtu xukmun waaw mais bu ñaareel bi mu war a tax nit ñi gën teey mooy mag ñi dañu war a ñaari xutba yi xutbatu alladina anamta alayhim ak xutbatul maxdubi alayhim أو الضالين مكني دنيي نت بوفوفو أم نيو خمني بنيو وخي يلا سين كدو كي الذين أنعمت عليهم كلا كوي نت دا دنيو وخ مكلو لين وورول mais am ñu nga xamni nak même bu len yonent juróon wala wali yu jur len bu ñu waxe sen kàddu ci al maghdub alayhim aw awi dallin ci lañ koy nat gën bal ma nak bu may wax aya fekk ci bir phrase arab la bokkul ak bu may wax aya fekk ci bir al-quran la ñaar yi bokkul waaw bu ko defee xàmmee ñaari discours yooyu dafay am solo ndax sens de responsabilité mooy tax te sunu borom fi muy nattee ak fi nit ñi di déggee dafa nekkul benn moo tax mag ñi seen yitte yépp mooy baat yi yàlla ni muy utiliser baat yi bu téyee mu ne alqawl bu téyee mu wax alkalaam quelle est la différence entre alqawl wal kalaam alqawl bu ko yàlla dee wax rekk xamal ni lu dundul la innama qawluna li shay'in ida aradna an naqula lahu kun fayakun yakun mais bu fekkee ni kalaam la nag li yàllay waxal def ni jonn ci kanamam wa kallama allahu muusa takliman loolooy tax différence yi am yëpp ci xëccoo yi ñàkk a xam yëf yi fi muy jaar fan la looy tax ma bëggoon bu démarche scientifique bobo n'om capitaine Gel. vois le checkpoint mu Mathieu ma la génération bi seen démarche scientifique ñoom ñoo ko moom ñun ay ndongo taalibe lañu sunu njàng paasewul daara ji baal leen ma soj bi la de waaw le checkpoint avant mu ñëw ci nit ñi ma nga commencé ci sunu borom yàlla moy régisseur bi jëk pour installer checkpoint ci batu inna rabbaka la bil mirsad loolooy tax dara du ko rëcc waaye itam y a un mu xam ni li mu tal am na yoo xam ne détail la ci moom ndax la ca nekkoon farata def na ko ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد معتقد له خيو فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد mu mel ni mirsaat boobu mu tudd moom sunu boroom waaw moo moo tas ci àdduna sax waaw ngay dem ci prison yi gis fa li ñoo tudde Mirador nga dem ci aéroport yi gis fa li ñoo tudde tour de contrôle waaw nga dem ci caserne yi toujours am na ñuy monter pour di xam tout ce qui se passe autour du caserne yooyu yëpp ci mirsad boobu la jóge mais sunu boroom xam ni am na yeneen yu ëpp solo mu jël teg point bi chargé ko sharia sharia personnalisé checkpoint bi waaye bi ñu demee ba gis ni côté sharia kese kese du mën a gérer lépp ba mu jeex ci la mag ñi jóge pour nag jël ko check point bi dugal ko ci côté xaqiqa biñ ko dugalee ci côté xaqiqa nag dootuñu ko personnaliser mais dañ koy personnifier looloo tax baat bi ñu leen tudd Wa waaw baynahuma barzaxun la yabgiyaan baatu berzak bobo.

تيوخ والغوث والبرزخ المكتوم علي يعطى بالإله بلا ريب وتبيينه سيدنا الشيخ نك بوبو مو نك البرزخ باسكو كونسيرفاتور لا تي باسكو البرزخ الاعظم mooy بي صلى الله عليه وسلم موتاخ بيم في جوغي مو كونفي كو سيدنا الشيخ pour mu conserver ko kana bu ngeen fàttewul amna gam gàmm guñ ko waxtane fi ba sunu mbokk wa Mauritanie di di sar sarxolli te moo di ñoom tudd giñ ko tudd ba noppi tudd Sëriñ Babacar woykat yi dama dégg ñu tudd ñetti baat ci fan yi passé rekk dégg naa ko ci Sambu nyom naa ko ci ñoom Pape Malick Baye ñu tudd ñetti ñetti njool njool Màkka njool Fuuta ak njool fama waaw wolof nag mooy wax ni ku ko mi dara nekku ci waaw kon nag buñ ne ñetti njool yi li ci mat a xam moo di lu wolof di wax ni suuf bu sutee moroom ma dañ kon lay xamal ni rek koy def sut suuf bu sut moromam dañ ko jall la ko jall mo jara xam wa anta min al akhlaq tamliku ma tasha wala yamlikuna minka gayra al machiati waaw mu mel pour nga meuna xam sen njool njool yoyule دفاي لاج نغا خام نياري بات باتو الغاية اك باتو الكمال الغاية موي اريفي لين داريفي مي لين داريفي aussi par ordre d'arrivée la am na ku njëkk a yegsi am ku ca topp am ku ca topp mais ñépp yegsi nañ mais ordre d'arrivée bi kooku nag arbitre bee koy xam waaw moo tax nag buñ ne alkamal mooy qualification bi mën nga am score te doo am qualification moo tax mag ñooñu ñu tudd yépp yemuñu ci seen score mais seen qualification kenn ku ci nekk ak mayam xam nga woykat yi sax léeg ñu dugg ci fekk mag ñu baax ñépp ñu ngi ci biir ni njool màkk lu mu ñaan yàlla def def na ko effectivement njool fuuta lu mu ñaan yàlla def na ko njool faama lu mu ñaan yàlla def na ko mais lu tax mu def ko lan moo tax mu def ko li leen qualifié ba tax loolu mën a am loolu moo jara seet waaw looloo tax bu ngeen seetloo ca waxtaan ya passé woon tudd nañ leen palme d'or palme d'or bi li ko représenté pour ñun mooy jawharatul kamal wax naa leen ni yonent bi moo ñaan cheikh pour mu conserver ko comme nag njol màkk jël na palme d'or bi ba noppi

moom Cheikh El Hadj Omar meilleur scénariste moom El Omar moom lañ ko jox ñu ne waa kon nag jol faamam moom Seydi de Hadj Malick ñu ni moom la ñu jox palm du meilleure interprétation ndax xilaasu dahab fi sirati xeyril arab waaw bu ko defee kon mag ñu baax ñooñule kenn du leen àtte ci communautarisme wàllu taifiya kenn du leen ca àtte mooy li Serigne Cheikh waxoon ni ñoom ay universaliste lañu waaw fu ñu dem rek mën nañu ànd ak ña nekk ndax seen may moo toll noonu waaw mu mel ni kon xàmmee yooyu rekk te bañ defa ni nit ki day tëdd rekk ñu yee ko mu jóg rekk ñu yëkkati ni ko am déedéet am na ko nga xam ni laata muy jot la mu yor bu la waxee fa mu jaar li ngay laaj mooy ndax yàlla ndeke soxare na noonu te fekk soxaru def dul maye yeufam ci kese kese waaw mak ñu bax ñepp jaar nañu fofu nga ngi fàttaliku sëriñ Koso Mbàkke bi ma nekké ci prison bi mu ñew seet ma ñi sant Mbàkke rek ñoma ci prison bi ñi sant ken ñewu bi mu ñëwee moom sëñ sëriñ Koso jooy na sax ma ne ko sëriñ bi lan la mu ne ma dama xam ne boo xamoon li sa maam sëriñ Touba daj kon daa fi gën a muñ mu ni ma biñ ko jëlsee pour yóbbu ko Gabon fañ ko denc ci ndar cellule bañ ko duggal julli sax bu koy def ci ishara la koy defe ndax bu né ni bopam di lal fi cellule bi bu né ni ten bopam di lal cellule bi donc mënul seug mënul sujjóot waaw kon nak ku donne ñu mel que nek ci prison du sa que sa problème C'est serigne Abdul Fattah Mbaké ñew jaar fofu bi journaliste yi nga ñew set ci mustapha mu kenn ku ne nga am ci jamono yu xat-xat nga leen di xamee waaw mu ma fi waxtu pour mu xam ni du moom rekk ñi baax ñépp ko bokkat moom waaw waaw tabaarakallaahu ñoom sëriñ Abdou bii kër ga ñoom ñépp la góor gi mobilisé waaw dafa mujj di leen def loo sketch sax waaw <laughs> nit nañuy ñëw ca prison ba di ma reeloo waaw ndax ne nag ma bañ a triste waaw ñuy ñëw ca prison ba ñoom Serigne Abdou ñi ñoom maam léeg-léeg ñu ñëw fa ndeysaan ñoom soxna kinne ñoom soxna um Kulsum ndeysaan ak rahmatullahi alayha soxna aasi waaw waaye fekk yëguma ko waaw ndax li góor gi daan wax ni sunu kër yépp ay prison de luxe la tax yooyu doo ko yëg mu mel ni kon ah heure baa ngi dem dañ doon essayer pour barke lu tuuti rekk xëy na ba suba bu suba ñu yeggale check point bi waaye itam sëriñ Abdul Wadud mii Mouhamad Abdul Wadud maa ngi koy suivre jamono yi yépp li ñu ko génnee ci télé yi ci jamono yi moo ëpp mu wax ci wax yu am solo yu ma retenir sama mbokk bopp bi Seydi el Amin Mansour sar mu ngi may nettali bi mu joge kër jëmb te woo ko téléphone la mu wax ak mom yépp fa tabarakallah mu melni dara ji la nak ñun ño bokk dara ji te luma wax bu wax formation formation rek le tout tudd te yitte bi ñu yàlla dimbalee am ko ngir yàlla ki ñu yar ni conditionné la leen conditionné moom sayid Cheikh ma sant yàlla rekk lañuy def di ñaan yàlla itam mu may ñu at mu jot ñu di ko dundal ñépp di fekk te ñépp am wér xanaa ngeen ñaanaaleel ma wér gi waaye gëwuma mu yombati ne am na loo xam ne ku ko yenu ba noppi wér dina la jafeeti waaw yow tolloog mag ñi ak seen xikma rek maa ngi dégg suñu cheikh di ko nettali ni sëriñ Babacar bu ma saan ci salle bi dafay mel ni dara jotu ko mu ne waaye bu nit ñi tàggoo ba dem nag ne mu ne cey mu du ngeen ma may frotté way ndax sama oom yii di sonal na ma waaw di jàmbat yu bare di jàmbat yu bare waaye bu nit ñi toggee nag mu mel ni dara xewul waaw loolu moom la jële ca mag ña donn ko ci ñoom te duñ ko ragal nag waaw bu ko defee ñuy sant yàlla am na ñu laaj sax ci suba waaw ci accueil bi daa jaaxle ci sama comportement waaye fekk na dafa am lu ma xam te mënuma ko expliquer nit ñi waaw ma faf ko jaaree noonu rek waaw sant yàlla rekk la ndax itam atu yàlla gisuloo njaboot yi yaa ngi ci sa yitte ñoom ñu ngi ci seen yitte ba bisu tey bi daje kenn mànkewul liir yi namp sax ñu indi leen ñooñu boo leen xoolee ak seen enthousiasme ak seen yitteeg seen farlu nga yëg ni sa jëmm gi moo leen fi bàyyi wallaay bu sara rangooñ waddul nga xam ni kon war ngaa seet sa bopp waaw waaw dafa tolloog nag sunu borom du juum noonu la tërale àddunaam na ko góor gi waxoon fa taratan tara yusran wa taratan uxra tara usran kon nag fa inna maa al usri yusra waaw moo tax rek lu yàlla indi rek nga jël ndax li mu góor gi waxoon ni yàlla man mënul xarit ndax lu mu diis la yenn yenn la ko waaw waaye l'essentiel mooy nga nekk xaritam waaw bu ko defee kon nag njaboot gi sant leen maa ngi ko wax ci suba taxawaayu maam capitaine ak ay freram ak i cousin ak ñi mu bokkal ci MG bi taxawaayu soxna Fatima ak yaayam ak ñi mu bokkal seen groupe yépp ah boo ci dee xalaat da sant yàlla lool ndax boo amul woon ñu mel noonu yow yaay summeeku pour defal ko sa bopp waaye kon dafay mel ni sonnloo pour sa kilifa donc ku sonn ngir sa kilifa yàlla am lu mu la fayee waaw bu ko defee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaanale képp ku ñu bokkal yëf yi yàlla may leen ñu guddi ci fan te yàlla yokk leen ci barke yàlla yokk leen ci sutura ñu ngay sant ñëpp ku ne xam na ni lu mel nii kese kese defu ko njaboot yi mobiliser wu kenn ku ne à sa ñu bokk ci dayra ak ñu bokkul ci dayre ñi ame parti politique ak ñi ame yeneen regroupement yooyu yëpp léeg nga gis sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj ga nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan la waaw dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal boo jógee ni ci Moustarchidine yi laa jëm luñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaru ko Moustarchidine soxlawul kenn ndax yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam waaw man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax kérok bañ ko jëlé prison mu nekk dans le coma ñu yobbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt, Khalifa Babacar Watt. niko taxawul ma Sonko mok pap Alé ñom parce que ci liquide leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi noonu mu taxaw mon professeur

fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma lànk waaw ma lànk recevoir wu ma kat waaw ba démb ba démb ba démb waaw am na ko fi woote waaw waaw sonk moo ma yónni woon bu dee doo ma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nangam nangam ay dàllam sax kin séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu lañu war a bàyyi Sénégal changé na te sunu génération bi xëy na mag ñi ñoom ni leen yàlla binde la leen yàlla binde mais ñun suñu génération bi nax ñu yombul waaw moo tax ku yebu looy def rek nga xam ko waaw et bu ko defee kon nag ah, waaw dañu tudd yeewi askan wi bu ñu honnêté bu ñu honnêté dinañ xam ni Yewwi Askan Wi fu mu yegg si man maa tax mu yegg si fa du du sama jëmm ndax la may def fa mu koy defe yàlla rek a ko fekk pour di leen dimbale pour ñu dem de l'avant ma defe ni kon nag ca loola it laa dëgg ba duma Macky Sall duma yu sap-sap waaw li nit ñuy soow yépp soow soow soow man wóoroon ne ma ni dafay dem mu des nag lay ñëwaat suite ba ndax am na loo xam ni pareekul waaw bu ko defee kon nag may ñaan nit ñi rek ñu ànd ak seen xel ànd ak seen sago te itam rekk bañ lu riir rekk nga topp ca di dardari di teey dafay baax waaw ñi ca am seetlu am dégg ñoo nga ca mbokk yu bare sonn nañ ci xew-xew bi sax ñoom Barthélemy Diaz yónnee na fi ay ndawal yónnee fi ay enveloppe te xam naa it au fond li mu xalaat lan la ndax yóbbante na wax ko ñeneen noonu ñeneen noonu Déthié Fall mu ngi ko yóbbante Cheikh Youm mu wax ma ko Anta Babacar Ngom waxoon na ni fii lay gàmmoo xawma nag ndax mujj naa ñëw walla ñëwul bu ko defee réew mi ci boppam moo yëngu dafa jaxasoo ku yebu ni tekk rekk ba xam lii riir fu mu jëm waaw yenn ti wax yeeg yenn ti tontonte yeeg du ko xaw a jar ndax bari na lu ci am ñuy laaj lu ciy sama position waaye fekk na dama mës a wax ci kër gi fii wax ni man nit bu ma ko nawloowul duma ma tontonte ak moom waaw nit bu ma ko nawloowul du tontonte ak moom looloo tax yu bari yuy am mais am ci yoo xam ne sax man lañuy ñuy attaqué mais ça ne me rien ndax daf ma wóor ni ñi koy wax raw naa leen ba noppi waaw yàlla xam na ko ñoom ñi sant si ñëpp amu ci kenn koo xam ne dinaa la xool ba defa ne naw la nga pour man waaw bu la neexee nag def seen groupe raggante seeni gannaaw dem wooye ñu kenn xamul pour ñu di len defal propagande koku sen affaire la moi j'ai pas besoin waaw da yalla ma defal propagande ba Quoi waaw ko defee rek ngeen xam s'en bop te ngeen gëna taxaw capitaine wax na leen ko ci seen daje yu mujj yi am na ko xam ne bu ñu yebee kilifaam rekk ca moom la waaye njaboot bu xam kilifaam def la ko war taxaw taxawaay ba ko war kenn du yëpp kilifaam waaw bu ko defee rekk ñu yërëm njaboot yi yërëm itam sunu gan ñi man maa doon tenir pour que ñu bañ di goûter ci gàmmu yi ndax buñ fi ñëwoon cinq minutes sax mu doy nit ñi kon nag bu ñuy amee trente minutes sax baax na bu ko defee li ci des nit ñi dem récupérer tuuti

ñu jóge Cameroun ñu jóge Mali ak sunu waa Mauritanie ak waa Gambie ñoom ñépp tabaarakallaahu ku ci ne na mu rafete rekk taxaw nga ko yal yàlla fay leen te yàlla barkeel seen lépp te yàlla yokk sutura yi te yàlla yokk tawfiq yi ma jox capitaine mu conclure te joxe ñaan ñun ñëpp ñu ñaan ko yeneen te jàmm bu suba bu suba nag ñu soog a yeggali li ci des xam naa sama bokki bopp yi Mouhamad Mbacke ak Sidi Ahmed El Amin àndaa ba suba am na ñu wax bu soobee yàlla kon nag sëriñ nga conclure rekk waaw incha allah